asalaamaaleykum suñu mbokk internet yi baye xel sn xibaar point com tv ñu ngi leen di nuyu di leen ziaré di leen balu ak ci julli yi nga xamni mom lañu genn di leen ñaan ñu fekk ko ay dewen dewen dewen ci barke Serigne Touba te lepp lo xamna ñaan nañ ko suñu borom nangu ñu ko di ziaré ñepp di bégé ñepp dee ci genn ci sn xibaar ci émission spéciale yi nga xamni ni di leen dina leen ko faral di amal bu événement di ké tay nak ñu dalal ko xamni askan bi gëjoon nañ ko gis wa Touba gëjoon nañ ko gis ñu fas yéene seq ak moom waxtaan lan moo waraloon gëj gis bi wante ay thèmes yu bëri yoo xam ne war nañ see waxtaan ak moom muy Baye Alla Sylla nekk responsable politique APR nekk opérateur économique fii nga xam ne mooy diwaanu Touba dama koy bàyyi rek mu nuyoo ak suñu mbokki internet yi bu ko defee ñu dugg dëgg dëgg si bi maa ngi lay nuyu Baye Alla. waaw salaamaaleykum Baye Tall ñu ngi lay fay di leen dalal jàmm tey fii ci sama kër di wax alhamdulilah rabil alamin tam sant yàlla bu baax daal ci. ñëw gi ngeen ñëw seet si ma ko bàyyi ñëpp ñëw seet si ma ko maa ngi leen ci dalal fas yéene séq ak yéen nag laaj ak tontu di leen sant di leen gërëm. bàyyi la nu mu dundee tabaski bi événement bi julli ji ak waa këram famem waaw sant yàlla bu baax alhamdulilah rabbil bi nag comme li may wax rek tabaski gi mbetteel lañ ci am ndax wax dëgg yàlla bu bu ñu la waxalee dëgg bett nañ daal ci neexaay. ndax lu lu ci ñu bari doon séentu amu ci ay manqué xar ay ay jafe-jafe daal wax dëgg yàlla alhamdulilah lañ ci mën a wax sant yàlla di ci delloo sant yàlla nag it ba tey comme ni ko sëñ Mountakha waxee di ko ñaanal tamit mu yàgg fi te wér ndax Mbàkke Bala xam na ni moom dara itteelu ko lu dul liggéeyal sëñ Tuubaa kon nag ñi ngi koy ñaanal tamit yàlla na ko fi yàlla yàggal tabaski daal mbégte rek lañ ci am ñun bu baax tamit sant njaboot gi yëpp daal ndax nit mom bu fekke dafa yor njabotam te melna ni dara dara dara dara waru ko ci day jek jek rek ñu ne ko bàyyi bagage yaa ngi ni andil ko yeb kon sant nañ ci yalla bu baax alhamdullilah rabbil alamin kon rafet lu nga liggéeyu ministre bi nga xamni mom mo yore bo élevage si événement bi par rapport ak tabas gi ñu wessu won bu njëkk wa xam nga lolou tam lu mu ci mëna doon rek ñun dañ koy sante suñu borom rek mm-hmm. ndax fay am lu bari lu nga xamni eh, day melni mom buñ ci sante suñu borom moy gën ndax mbettaayee mbett mbetteelu xar yomb moom bett na ko ne ndax yaakaar naa euh, askan wi lu ñu waajal seen bopp la kenn ku ci ne yaakaar naa du duur ni dañoo jënd seen alal denc yaakaar naa loolu moo ci moo ci feeñ mais comme góor góorgóorlu ministre bi wala yooyu mën na mën na seex génn waaye tamit yaakaar naa askan wi tamit ñoo am farlu la amoon daaw bañ leen a bett des fois loolu tamit day am fu muy at neexee mi ma ca topp rek ñaaree li ci ëpp day day day xaw a daal tane ndax kenn ku ne da nga waajal sa bopp bala la dalan duutu la dal man loolu laa defee ni foofu la féetewu ministre bi nag moom li ko war def na ko wër na département yëpp kenn fu ne mu ñaan yàlla bu fa manqué ñaan ña fa nekk benn point la bu ñu defoon rek si si événement bi si julli ji léegi nag dañuy ñëw si l'essentiel muy bàyyi la gëj nañ koo gis le trop trois mois ngi nii wala boog ëpp na ko sax gëj naa def sorti gëj nañ koo gis si langue politique bi gëj nañ koo gis mu feeñ ci benn écran lan moo waraloon loolu. rek bàyyi la moom feeñ ci écran yi toujours te wutoo ci lu bari daanaka përiwul euh, njariñ parce que askan wi tamit ñun li ñu tàmmoo defanteeg ñoom mooy suñu amee suñu dimbal jox leen ko. li ñu doon def tamit ba tey écart yi yoon wi ñu doon ko moytu comme nii rek mm-hmm. li jàpp ñëpp moo ñu jàppoon mm-hmm. muy feebar bi mm-hmm. te li ñu waxoon mooy na kenn ku ne toog sa kër. question bi muy maanaam gis nañ ni ba yàlla dimbal yi nga xam ne jox na ko askan wi wane wu ko par rapport ak ni ko yeneen politiciens yi defee wane woo woo presse bi yëpp ce que loolu nag askan wi dina tax dina wax ni est ce que Baye Alla li mu waroon ci Covid 19 bi def na ko comme que wane woo ko. waaw bi comme ni ma ci day nit ku nga xam ni. moom li mu nekk daf ciy fedal ñi nga xam ne dafa leen a dafa ànd ak ñoom tamit doonu ñu nga xam ne si comme ni ko ñoo ñuy defee di wut nit te amuñu ko mun dama am nit ñu nga xam ne dama ànd ak ñoom ñu nekk ñu nga xam ne ñu fedal lañ yaakaar naa ñoom toujours li ñuy wax sax su bàyyi la politique duñ politique ñooñu nag su fekkente ni xew-xew dafa am jamono dafa am xat-xat am soo amee loon di jox war nga leen koo mën a jox ci sutura ak i teggin yaakaar naa bu doon laaj tey ñooñu ñuy def micro soo laajtee dañu ne bàyyi la def na su dul loolu bàyyi la itam moom xam na xamul taj téléphone am xamul tëj këram aussi yaakaar naa li li ñëw ci sama kër pour laaj ma lijjanti leen fi loolu rek doy na doy na doy na joxe ci ci ci ci feebar bi mu wóor ma ne ñu fi ñëwal seen bopp ñëwal seen tànk ñëw seen liñ doon itteewoo te man te mu ne fi jox naa leen. léegi bàyyi la naka la gisee état bi ni mu seeree Covid 19 bi ba mu ñëwee ñu bari nee naan ak lajj la parce que ñu wax ni kat nañu tëj bi nga xam ne kaa ya bëriwul woon ñu dem ba nga xam ne kaa yaa ngi bëri ñun ñaa ngi faatu mu ubbi wax ni léegi dem leen lu waaye xamee na ko na ko boote doomam loolu mooy dañoo bàyyee ak feebar bi est-ce que nekkul ak laj yi comme ni ko yenn politiciens yi jàppee xam nga nguur sax moom boo ci bokkee bu mu defee li ngay wax moom doo wax ni laj na waaye ñun nag dañoo doon nit ñu nga xam ni naka jekk mbir moom boo koy boo koy dégg te agsi yegut ci yow da nga war a nekk tuuti nekk ba mu agsi ci yow mm. mais dañ ñun dañoo bëgg na baase ci lañ dégg rek ca bitim réew ca tubaab ya tubaab yi nag yaakaar naa suñu der ak seen der dafa am tuuti lu ñu wute lañ dégg ca tubaab ya lañ deene woon mooy egg egsi fii suñ borom nag dimbali nañu yàlla suturaal nañu yaakaar naa suñu deret moo ëpp doole seen deret loolu lañu suñ borom suturaale ba niñ ko doon seenoo dëgg-dëgg lañ defe ni woon mooy am déegeeg feebar bu métti bi demewut noona te kenn ku xam na nit Afrique liñ ko doon waxee ni ko yenn tubaab yi waxee wala suñ ñenn mag ñi seen seen seen seen seen seen tàngoor réew mi jant bi fu muy fenk bu wér di tàng bu wér a feebar bi waru faa mën a demee nam fa war a mën a demee ñun loolu lañ ci doon séenu ba amuñu ci woon yaakamtig nag yaakamtig daal xel ñaar defe ni nam def tubaab yi danañu ko def mosuñoo xalaat loolu benn yoon. yow ngi ravancé lu rëy rëy fii si dëkk bi dèjà ñi ngi si dix ak 200 euh, yoo xam ne ñàkk nañ ci seen bakkan muy ñaar téeméeri nit loolu noo ko jàngatee nga ni feebar bi ni mu daan doxee ni muy doxee si réew ma doxewu ko fi. waaw parce que feex da dégg benn suur rek nga dégg ñu ni ju nii ni dee na juróom benn téeméer te kon fii da ngay def léeg ngay wax léeg-léeg nga ni deux léeg-léeg nga ni quatre cinq kon yaakaar naa mooy li ma la wax ni la demewut nam deme fee fee xëy benn bis nga dégg ñu ni juróom benn nit feebar bi daanal na leen fii nag da ngay dégg ñu ne ci tàmbali ba ay ñaar ngay dégg ay ñett yu demee noonu rek muy continuer ba nag mu ngi bëgg bari mais ci kaw bëgg a bari kooku tamit taxul mu mel noonu ba tey nam nam nam war a mel fee mooy rek yaakaar naa température tàngoor yi fii ak ak sedd ba foofa du ñu bokk kon yaakaar naa loolu rek moo indi ñun ñu jortoon ni rek nam mel bitim réew du ko mel fii naka ngi seen dimbal li état bi joxe ceeb bi bi ñëwee bi mu jox ko goroom séddaleem ceeb bi ñu bari nee nañ jaarul yoon surtout Touba gi noo ko gisee ñu bëri jàppoon na ni est-ce que boo ko defoon xaalis apputoon solo joxe dund gi. waaw loolu ñun wax nañ ci waxoon nañ ci xëy na doonu luy génn rek bëri wuñ luñ ciy wax waaye toujours ñun suñu xalaat mooy jamonoy Senghor fekk nañ fi yaakaar naa ba muy maye xaalis pour pour dimbali ay nit ñu néew doole yaakaar naa am na nu ko jaarale woon ci kaw coowaloo bañ cee am yaakaar naa dafa seetaan borom kër gu ne rek la nga jot a fay ciy kaare say bopp. mu jox la lañ lay jox jaarale ko ca loola yaakaar naa buñ ko jaaw jaarale woon ci loolu ba tey xiiroo ak ŋaayoo mën na cee bañ a bari maa nag jox gi mu ko jox goroom loolu tamit moom xëy na politique tamit moo man xam nga daanaka mbir tam loo loo ko xool xool li nga yaakaar ne da nga koo bëgg a joxe ki nga yaakaar ne ni boo ko ko joxee da nga ko ci mën a soññi di ko laaj fu mu toll ki la gën a jege rek nga xam ne da ngeen a war a ànd bokk bokk bokk jom ji xëy na loolu la ci jublu looloo tax nag ma dee ni ñi ko war a jox ñëpp daal ay nitam lañ kiitam mbokkam la moo gën a jege foog na danga ko ci gën di bandi soññi waaw amaa nag Touba gi comme niñ séddalee jaar yoon wala jaarul yoon mooy comme ni ma ko waxee rek buñ defoon noonu ma la wax def na Senghor defoon jaarale ko ci bopp yi jox boroom kër yi nii nu gisee ni ni la ñàkk jaar yoon du ni jaar yoon man bu ma dee wax dëgg man gisuma ci ak jaar yoon. jaarul yoon waaw man pour man jaarul yoon. ndax li tax jaaru yoon ceeb bi indi nañ ko ba Touba te mën nañ mën nañ ne la ñi tax ñu indi ko ñëpp jotuñu ci ñëpp jotuñu ci parce que danga gis nit kuñ bind mu dem ñu ne ko dañ laa raje wala nga dem ñu la kër gi ñaar du fi am te bind nañ la ba pare te ci yow la ñëw keneen kañ koy jox na xamoo jox nañ ko ko xamoo joxuñu ko ko kon loo tax ñun la ñun jaaru yoon pour ñun li ñu jort mooy ñun bi ñu joxee teranga te ñu wóor ni teranga ji man naa yaatu li ma jàppoon mooy Touba liñ xam mooy luñ am bokk ndax bari na gis nga fi xew yi fi maanaam doo fi gis jënd passion doo fi gis leneen yaakaar naa bu ñu defoon noonu rek fexe ba li ñëw ñu fexe ba kër gu ne ku ubbi sa buntu kër góor mooy yor kër ñu fexe ba góor gu ne rek ñu jox la benn benn pàcc yaakaar naa bu ñu defoon noonu dana gën a rafet te wóor na ma ni kon ñi naan jël nañ ko jëluñu ko loolu du ci am. Baye Alla ni muy waxee nii est du liñ ko boolewul ci commission yi war a jëndale ceeb bi moo tax wala. mo wara xol xamni man ci conseil la bokku na ci doon na yit bokkum nit ñi dekk bi war nañ ni amna ci pierre ndax amna nit ñi lolu du lu kenn naatable kon nak jóg toujours nga bok ci mbir ñuy wo duñ la wo yaakaar buñ la wo nak te ngay sa dara di daw ci da nga nak da ngay tok rek ba xam dem xol setan, li ñuy def jaar na won wala jaaru yon de ñun li ñu xalaat bu fekkante ni def nañ ko moy comme non rek Touba mom li ñu xam moy bok yaakaar buñ wote won ñu ay seen xel rafet ñu wax ne lii kat lee la waaj wax waaye bu nu waxtaanee ba jubóo itam yaakaar naa defee ni borom ko kër gu ne am dara. mais Madiana gii nga dëkk tamit boolewul na sax ci commission bi nga xam ne ñoo war a décider. xam nga Madiana moom man samay bokk fi nag samay sëriñ sama ñëpp boolewuñ ma ci mooy comme li ma la wax rek du ma xëcc ci ci bokk ci mais li ma la wax rek ba ma xoolee ba xam ni boolewuñ ci am naa matu séddale nañ ba pare te demuma ko. kon loolu tamit li nga xam ne man dëkkee naa ko Madiyana te nga xam ne lu may man di defal saa bopp la du ma ci xaar ñu boole ma ci ak ñu ñàkk ma ci boole li ñu war a wax si ceeb bi sax bari na mais temps bi moom moo xat xam naa dañuy jàllaat ci ñu mën a bokk yi ñu ngi ànd ak Baye Alla si le responsable politique APR nekk opérateur économique fii ci dëkk bi léegi Baye Alla dañuy ñëw nag ci côté politique politique bi jamono ji bari na ay coow trop trop trop trop ki nga xam ni mooy si nekkoon seen naataango nekk fii si Touba muy Moustapha Cissé Lo fi ay mbiru doy waar def ay benn enregistrement boo xam ne dafa génn kàddu yoo xam ne kenn mënu cee jaar kàddu yu tegginu wut jëmale ko si nga xam ne ñoo nekk ci état bi lan moo waral coow loolu ak yow boo ci doon joxe sa xalaat loo ciy wax. waaw man loolu maa ngi ciy sant bu baax de ci gërëm ñëpp nag di def ni comme ni ko ñëpp defee rek ñun lu tegginu wut duñu ko mën a rafetlu waaye lay indi waral lu tegginu wut loolu nit ñi dañ ko war di xool di ko laaj ndax mbir tamit mënoo caa bokk ñu yaakaar ne bokk nga ca. fekk ñun keneen kenn ku ci ne booy waxal sa aqulaay taala da ngay jàpp ni Moustapha Cissé Lo moom APR la am am na ci yooyu daal kenn waru ko koo def te yaakaar naa wax ji ñun ñëpp buñ dee waxante dëgg yàgg na mbir tamit boo ca moo bokkee nit ngeen daan bokk tëdd daanaka fanaan wala ngeen di bokk oto ànd di campagne di wut menn mbir ba am mbir mooma yàlla jox la ko kon jot naa ne tamit ay nit ñu nga xëy ne ba ngeen di ànd di wër raison yi nekkuñu ca woon am na ci taxawaay yooyu bu ñu la ko ca dee taxawul wala saan nga toog ba xam ne ki nga daan àndal toog nga at wala lu ko toog man maa ngi fàttaliku nag campagne bi kere bi muy ubbi kër Sëñ Tuubaa gi gis naa ni Moustapha bëgg naa gis waaye mooy jot a toujours danaa dégg nag muy wax ci ensemble bi ak yeneen di wax di yóbbante di wax ni moom mënatut a gis président jot naa ni nag président moom moo war a bàyyi xel xam ni Moustapha te am na loolu bu ko woo seere ko du fa yegg am na kenn ku ne na ngay àndeek moom seere rek xam ni kii kat xëy na euh, nitu kii la bëgg na daal lu mu bokk ñu boole ko ca yaakaar naa li nga bokk bu ñu la ci boolee rek am na am na faf doo doo ca yegg. Euh, maanaam boo gisee nag ni ko gaa yi jàppee dafa mel ni làq doom. duma doom Moustapha Cissé Lo ne mu mer ci côté président Macky Sall mu dem ba am coow ak nga xam ne mooy Yakham Mbaye ak Farba Ngom ko muy ay nag état bi càmbar loolu au lieu nag muy ñëw di ñëw ci saaga yi rek ba tax ñu daal di dàq Moustapha Cissé Lo ci parti bi waaw mooy li wax rek mooy président ci moo ko waroon a seere rek comme que toog na at wala at ak lu topp gisuñ Moustapha dafa war a fexe gis Moustapha rek li ko neex ak naqar yi ñu waxtaane ko mooy li ma la wax rek buñ ko waxtaanee rek yaakaar naa danañ am déggoo amaan ak ay luwal bi gerte geeg yooyu Moustapha tamit comme opérateur la day liggéey yor na quota bi tam liñ koy jox mën na koo libéré jot naa ni boole ko ci rek mu néew a ko bari li lim am doon wàllam nañ ko ko jox ne ko libéré ko yaakaar naa bu ñu ko defee coow li du bari nit daal lim bokk dañ ko ciy boole. dàq gi ñu dàq Moustapha Cissé a man de lan la ko mën a wàññi man wax dëgg du neex a xam ndax affaire xam nga parti bu mag la te Sénégal gis nga ni muy doxee. waaw bu mag waaw mais comme li ma la wax rek xam nga Sénégal moom démocrate bi mi ngi dox. mais war nañ mën a gën a góor góorgóorlu nag def démocrate bi comme comme ni ko ñi ñi ñu wóotu defee dëgëral seen démocratie yi lenn lu ma doon ñu di ko waxtaanee fexe ba di ko teg ci dëgg yaakaar naa am na ci loolu buñ buñ buñ ko defoon daal am na fa moom duñ cee yegg daal. jàpp ko dàq daal moom mënut a wàññi dara APR. waa dàq gi man bu ma la waxalee dëgg rafetluwu ma ko li tax rafetluwu ma ko ñi ko dàq lan lañ ko dàqee ak fan lañ nekkoon ba bañ gañee ba pare ñu door koy mën a dàq yaakaar naa ñi ko dàq am na ci ñooñ bokkuñu woon premier tour ba. kon nag suñ dikkee kon dañoo fekk parti bi jàmbur ñu kii ci bokkoon ba sos ko ba parti bi am ndam nañ ko génne ñun toog palaasam rek man nit kenn ku ne man man paysan ci boppam bu ma ko doon xelal dama koy wax ne ko kenn ku ne na nga nekkoon ak moom bi ngay wut seere ko bi nga amee tam fexe ko seere rek parce que adduna bi li may la wax nii dara yàggut ndax moom bu doon ñetti mandat wa mi ñeent itam dara yàggu ci bu ñu guddee fan dara du ci yàgg lenn lu ma doon ci nettali rek lay mujj kon nag fexe ba nettali ba rafet man bu doon mën a man loolu laa koy conseillé mu seere leen ci ni ñu ni ñu mel seen jikko noonu mm. parce que ñoom ñëpp kenn ku ci ne ba ngay bàyyi di ñëw ci Macky Sall dara nga bàyyi woon président Moussa Diakhaté da daa bàyyi woon dara dem ci dem àndee ak Macky Sall la noonu ay dem àndee moom man daal bu doon mën a li ma koy xalaatal man mooy na leen seere waaw euh, wax nga ko léegi di wax ni euh, maanaam donte bu fekkee maam deuxième mandat bi mu nekk àggut sax war na leen a jàppale ñu bëri nag nee nañu président dafa bëgg a yóotu troisième mandat ba tax na dafay yeesalaat parti bi troisième mandat boobu moom yow noo ko gisee. waaw xam nga nit moom trois cent troisième mandat bi man waxoon naa ci waxaat naa ci mën naa cee wax ba tey askan wi rek ñooy ñooy décider askan wi rek ñoo am solo ñooy wate lim bëgg nag comme que jaaroon nañ fi ñu dëggal ñu ñu ñu ñu ñu ñu jagaloon ko baaxaloon ko yaakaar naa bu fi loolu dafa jaar maanaam maanaam suñu luwaa moom moo ko nanguwul. luwaa bi mooy comme comme comme it suñu maam da koo defan suñu maam defoon na ko. yaakaar naa moom it bu dikkee foofu jaaroon rek lay jaaral nañ ko yoon. ñun duñ man lu nag mooy mu des na ci askan wi ñu yor seen i rek su leen président liggéeyee lu nga xam ne gis nañ ni lii jëriñ na leen ah, ñu continuer su leen gisut tamit nag ba tey ñoom moom seen i kàddu. d' ko sax xëy na mais dama ko yaakaar parce que li tax ma yaakaar ko mooy comme jaaroon na fi ñu yóbbu woon ko ca kaw ñu àtte ko ni war naa mën a dem damaa jort ni biir bu ñu ko yóbboon noonu rek lay war a mën a demee en tout cas daal na fexe ba def li war a def rek askan wi bu fexe ba ñu xiif buñ mar li ñu itte woon mu fexe ba di ko def rek moom bu président Macky Sall waxoon ni dinaa def sama troisième mandat bàyyi àll pare na ngir jàppale ko si troisième mandat bi waaw xam nga man dama doodu xam ne damay ànd ak nit rek xëy la loolu tamit man du sama mbir yombewu ma noonu comme dama cee ànd eh, ñu gis ni ñi ngi gouverner mënuma xëy xëy rek tamit ni damay bàyyi en tant que parti bi di hmm. hmm. kon lu jaarul yoon daal moom da nga ko ciy jàppale ton lii jaarul yoon sax waaye da nga ko ciy jàppale wax jàpp ma ni jaarul yoon dama la wax ne la comme ñi ko fi defoon tamit am seen deuxième mandat hmm. ñu ñu doog a watee loolu bi ñu demee constitutionnel daf koo dëgël la may jàttale nag ba tey man ñooñu rek laay déglu buñ ko dëggalee damay defee nag ni dëgg la mhm. voilà nag ñëw nag fii nga xam ne mooy région bi département bi commune bi seen parti bi jamono ji doy na waar fan ya passé ñi ngi dégg ministre conseiller Cheikh Abdou Mbacké Bari mu mu nekkoon si benn télévision di wax ni jamono ji dañoo toll si defaraat parti bi ci commune bi loolu ndax yëg nga ko xam nga parti bi jot naa ni du neex a defar parce que en tant que ñi ngi xeebante rek dara du mën a gaaw a baax ki Cheikh Bali suñu sëriñ la sëriñ lañ ko jàppe niñ def suñu sëriñ it lañ koy def waaye ku ku waxal yàlla ci dëkk bi xam ni man am na lu ma man ci dëkk bi waaye bu ma la waxalee rek gëj naa jokkoo ak moom téléphone gëj naa koo xamal dara kon ku war defar dëkk bi ci parti bi rek jot naa ne war nga ciy wax ak man war nga ciy wax ak man loolu laa jàpp. la daal waaw dañ koy beddi mais dañuy defe ne nag dañuy toog rek ba dem soxla bàyyi la doo ko rek jóg demaat ci bàyyi la parti nag man bëgguma muy doxee noonu man damaa bëgg toujours ñu koy séq te nga xam ni kenn ku ci ne am na loo man lu ñuy wax ñu ñu di la ca boole man loolu bëggoon naa ko ci bu fekkee parti bi dafa bëgg a doxalaat dëkk bi jaarale ko ci yoon jot naa ni di waxtaan ak ñi nga xam ne jot jot na nañu ba ñuy dem élection li ñu defante woon mi ngi fi yaakaar naa li ñu def ci meeting defoo ko fi ñu dugg ci dëkk bi campagne ko defoo ko politique it campagne rek lañ ci yaakaar dem ci nit ñi waxanteek ñoom jox leen seen alal comme lañ ci defoon jot nañ ni ñu ci bari defuñu ko ci kon suñ dellee ba yaakaar ne am nañ dem tax ñuy dem di waxtaan ak ñeneen bàyyi ñu fi tam ñu ne loolu gënaluñu yaakaar naa ni nag teeloon na waxtaan ak ñun moo gën nag toog ba am soxla wala nga tiit doog a dikk di waxtaan. loolu jàppoon ne moo yàq parti bi. loolu koy natable suñu des ko yàq kenn ku ne nii man man a man a man rek ñun nag dañoo bokk ci ñi nga xam ne nag man a a njooj dañ ciy bokk wala ñu bàyyi suñu yitte nag dem Dakar di Tambambal déedéet ñun loolu suñu suñu kii ñun dañoo bëgg ku nekk ca kaw boo ca nekkee tam ñu xam ne yàlla moo ñu sàkk sàkk la ñu ñu bëgg a wane ni ni na suñu borom it neex nañu keneen ku ne ni la suñu borom def neex na nu waaye bëggoon nañ tamit li nga xam ne noo ko séq te nu am nañ ci man-man ñëpp xam ne am nañ ci man-man it lu wàcc lu ci waaye def nga ñëw wax kook ñun loolu luñ bëggoon la wala saat kilifa nga boo ñu woo itam ñu ñëw loolu tamit bokkoon na ci lu nga xam ni est-ce que du baax la ne dafa bëgg ñoddi nag ngir jiite parti bi ci ci bi xam nga fii ci Touba jiite ci borom dëkk bi ñaare du yomb ndax fii li ci ëpp mooy doxuñu ci parti dañuy dox rek parce que mën naa laa wax ni la ci kilifteef kilifteef ko nag googu ñuy dox nag ñi nga xam ne yaakaar nañ ni kilifteef kooku lañuy ñuy dox ñoom ñoo war a xoolaat seen bopp ndax nit tamit bu la joxee ci da nga koo war a delloo cër bi ndax li ci ëpp fii dangay gis ñun ñëpp ñi ci ëpp da ngay dañuy politique mooy li ma la wax rek li ñu defoon mi ngi fi kenn ku ci ne da ngaa wutoon sa internet teg yaakaar naa la meeting yi ñu defoon ak yëpp mu ngi fi dara dara duutu réer léegi kon jot naa ne li ñuy def rek dañuy jekki xëy euh, def seen i lobby lijjanti ba fal kenn boo gisee aw conseil yeeg yi ñu fi def yëpp noonu rek la parti bi doxe kon parti bi moo lay wax ne loolu moom dara jaar suñu ay lobby yu nekk seen ginnaaw rek waaw loolu loolu loolu nag mooy yàqal parti bi fii ci ci lu ëpp ci lu ëpp ndax nit ku nga xam ne dañoo lijjanti ndomba jox la rek xamoo noo ci jotee doo dimbali parti bi ci dara te yaakaar naa ñi fi joxe ndomba gisuma fi nag ku nga xam ne yaa ngi taxaw ku nekk ci militant yi di leen taxaw gisuma ko <laughs> kon baax na ginnaaw doo sori léegi ci jafe-jafe dëkk bi nag maire boo ko laajee moom nee na amul compétence yore assainissement amul compétence yore mbirum mbalit amul compétence yor dara yi dëkk bi daal te gis na ni jamono ji moom dëkk bi comme maire bu màggat foo laal dafay metti compétence amul mais li war a am mooy xalaat bu jub parce que am na am na barab yooyu moom dafa nekk priorité obligatoire fu mel ni yoonu Mbàkke bi deux deux ah, foofu day fees te woto yi tur suñu dee jooyaloo noonu mën naa indi tur jafe-jafe la ñuy taxaw su tawee ñu dem mang ko jot naa ne suñ ko jëndee woon teewa yu mag yéegal ko mu ñëw fa fa teewa nekk yaakaar naa moo gën a gaaw su tawee bu ne ñu wut ay woto yi wii daas xanaa loolu compétence la xaalis rek koy def xaalis boobu ñu ci def nag ay maire na leble wala keneen leble wala góor naa lebale ñu jënd teewa yu doy monté ko mu dem ba ca fa fa fa régol ba nekk bu ñu ko defoon ba tey foofu moom ñu wax nag dëgg dëgg dëgg ci jafe-jafe yi dëkk bi làmbool parce que nawet bi màggal Touba mi ngi ñëw te ci nawet bi la koy fekk bientôt yeneen màggal yi ñu dëgmal ci digg nawet bi lay lay nekk te chaque jour dañuy am problème ndox ñu ñëw ñëw sëkk wut ay pompe pompe après dem bu xëla ëllëgee mu tawaat mu am ndox loolu liggéey bu jaar yoon la yàq ay milliards si ci ka sax mooy li ma wax solution bi mooy li ma am li mu war a doon mooy dafa war a nekk solution bu nga xam ni dafa nekk bu nga xam ni loo weesu rek weesu nga ko mooy foofu ma la wax ñu ko defaroon ni rek jooju wax moom day jeex tiwo yooyu yaakaar naa ñu bu ñu ko defee def ko moteur foofa su tawee ba si ñu taal ko niñ taalee moteur yi jooju wax moom day jeex tàkk foofu jeexee feneen fu nga xam tam ne bu mag la national ñu fexe ba def noonu rek ko tabax nañ ko fondation bi dëgër na mais bu dee da ngay toog rek bu bu kee nga manque du tax tamit ndox ne quartier périphérique yaa ngi jooy côté Sam côté Tindodi périphérie moom xam nga fii Touba moom sanc la sanc moom damay wax ni dëkk bi moo nekk sanc géejit nag amu fi gu gu ndox mi man di di dem parce que fokk nag ndox moom nawet dañuy ñaan yàlla muy taw ci ñaan yàlla googu ñaan yàlla tamit muy taw trois mois moom yàggut yaakaar naa day def semaine bii mu taw semaine bee du taw boo muñee rek ñaari fan ñett ndox mi dem dem waaye nawet moom ku ci nekk rek ndox ngay ñaan yàlla na ñëw te doon ndoxum jàmm rek gis ci côté gaz Daaru Muxti bi ak si côté Madiana bi nga xam ne fi nga dëkkee noo gisee insécurité bi maa nga insécurité bi man ni ma ko gisee mooy mooy xëy na kenn ku ci ne sa bakkan moom fi mu war a dara du ko tax mu man ko weesu mais am na insécurité bu ñuy bu ñuy bu ñuy bu ñuy woo tamit dëgg-dëgg jot naa ni lu lu nga xam ne amul ci capital ba bu su fekkee bëgg nañ ko fii ci Touba itam mu demee noonu du yomb police ci kaw police jot naa ne mën naa joxe sécurité mais mën na koo xañe aussi politique daal euh, kii euh, sécurité daal li ñu ci xalaat dëgg-dëgg mooy ñi fi nekk bu fekkee yàlla dowal na rek nit ñuy doxee nii ñu gën a dolli daan yi tuuti rek am na ci loolu lu nga xam ni maanaam waajur yi tamit dañ ci nekk am responsabilité eh, ndax kenn ku ci ne am na loolu yaa ko mën a tàmbalee ci sa kër mooy ba ci xale yi ñu doon wax bëgg démb yu réer yu demee noonu yooyu yëpp man bi ma ko déggee itam eh, dégg-dégg yi niñ ko niñ ko nettalee rek ànduma ci woon na ñàkk ngay àndoon it mooy ay nit mënuñoo xëyee seen kër dem doon siyaare ji yu demee noonu kon tamit kenn ku ci ne yaakaar naa da ngay am responsabilité ci sa kër mooy comme Touba fii rek ñun ñu fexe daal bay wéy ci ndigal li nu sëñ bi digal yaa jot naa ne buñ ci wéyee rek eh, sécurité bi mën naa gën a bari mais itam bu ñu wéyee ci ndigal li daanaka day am loolu foofu day liñ ci am buñ ci jàppee te dëggal tamit dana dana fi jaadu. waaw fa ma nekkoon mooy di ñaanal sëñ Mountakha Bassirou li mu sumboo liggéeyal sëriñ Tuubaa yëpp yàlla na yegg ci kanamam ndax gis nañ ni programme bi mu ci jël rafet na ndax doonul liggéey bu nga xëy daf koo sembu rek bàyyi ko ci loxo ñam ñam ñam ko jox daf koo sémbu bàyyiwu ko ci ñoom da leen di topp fexe li muy liggéeylu mën a yegg yaakaar naa bu ñëpp doon liggéey loolu di def nii ni mu def nii duñ wax ni ñu ngay liggéey ba yàgg ana ñu naa ana xaalis bi fu mu jaar kon dañ koy sant ci loolu yaakaar naa ni muy doxee noonu la mag ñi doon doxee yàlla na ay egg gi fekk fekk mu fekke ko te dund ak ñun ba ca kanam kanam di ñaanal tamit ñi ci dëkk bi ñëpp muy sëriñ si muy taalibe yi muy dongo yi ak ñëpp daal maa ngi ñaanal ñëpp am jàmm muy politiciens yi ñu woote jàmm te xam ni nit kenn ku ne la la ñu bindu ci sa sa jë incha allah di nga ci jot di sant ñëpp di leen gërëm di leen sant yéen itam di leen gërëm di seen xabaar di leen doolee nag ñaax di ñaax askan wi nag ñu ñëw seet seen xabaar ba xam jërë ngeen jëf. jërë ngeen jëf mbokk internet yi doon bàyyi xel seen xibaar point com plateau spécial bi lañ leen indiloon fii nga xam ne mooy Madiana fekkoon fi responsable politique APR di opérateur économique Baye Alla Sylla dégg ngeen kàddu yu am solo yi nga xam ne wax na ko fi waxtaan wi nga xam ne seq nañ ko am moom ni rek lay seen xibaar yi defee ak yéen incha allah rabbi dinañ ko seq ak yeneen politiciens ak ñeneen ñoo xam ne aussi tamit ay opérateur économique lañ nga xam ne mooy développement Sénégal rawatina si dëkk bi ñu nekk muy Touba di sant di gërëm état bi kaddu gi Saliou Dieng di leen jox di daje beneen jamono incha allah di sant nag sama tailleur ki nga xam ne moom ma solal muy Xaadim Gueye Bamba 444 Couture di ko sant di ko ñaanal jàmm di wax ni teg leen seen baaraam foofu ñu dem te ñëw di ñaanal jàmm ak salaam jërë ngeen